aajo it mu defanteeg ñun noonu ginnaaw bu nu demee biir suuf it yal na yaal sunu bàmmeel ba mu yaal bàmmeel xat na torop lëndëm na lool ñàng na rak lu da ndeysaan amul gunge amul wéttal moom bu ñaar deewandoo woon sax nit ñi dañuy bañ duñ leen boole bàmmeel ku ne dañ lay ber rek ber rek ber rek buur boobu dina dafa fekk ba nga defee ne yow rek la bindoon yow rek da ngay defee ne yow rek la bindoon kon nag waxoon naa bu yàgg ne nu bàyyi sunu xel ne dina nu gental am déet waaw dañuy dëkk ci kaw suuf as as ndiir as ndiir as ndiir tasxiir la ak koy jóg yaa dañuy dëkk ci kaw suuf as ndiir as ndiir as ndiir ku wóor na di nga ca dem ku nga gëmloo foog ne mën na la caa dimbaleeg wéttal loola bariwul kon dimbalal yàlla la am déet te amul dara dara luy dem foofa dara dara du fa dem lu dul jëf ji yiw kepp kenn gisagul ko dee ñu boole ko jabaram suñu day def ci kër gi toog li fan yu ko yàlla toog loo woon geneen góor jël ko bu amee faam mën naa doon sax sa noon ko ko jël yow nga dem kenn deegul it ñuy boole la sam taax suulaare la nga am banque ba sax say mbokk balaa cee jot dañuy xaw a dee waxuma yow mbubb yi ñeneen jël lal yi ñeneen tëdd lenn ngi la nga yóbbu nag bàyyi ko xel teel bu xel mu ñaaw te lii kat ci la nii ngeen def ci la am bés nga dog sa bakken ne ko doo nelaw tey ñu laaj la lu xew nga ne nëb yi la ñuy woy jàppati ci sa wërsëg ñu ne foo ko jëme nga ne feyoo jiwuma ko bor mayewuma ko ngoro Moustapha tax te fii ku fi ñëw tey gis lu buur bët am déet ku fi ñëw gis lu bóor bët boo xoolee soo dégloo dégg lu fees nopp dell dell boo ju ginnaawee loolu soo tax borom Tuubaa la ñëw joxe fii addiya borom Tuubaa laa wax ku yaakaar borom Tuubaa laa wax ñu dem joxe parce que borom Tuubaa laa wax ñu dem joxe fii bu taxaw fii dem sa loxo jagewul ala ji bu jaaxo yéen Tuubaa bi jaay Muhammad walim laahu xayrul aalamiin Muhammad محمد عبد الله عبد الله يا ابن ابي طالب محمد الامين ابيض الاولين والله ما في الارض والسماء كفلا مدى من الاشياء ودر ودخل خوف مصطفى امام الحرمين بلا لم ياتي ولا ياتي مثل من عبد الله في الحياة ممن عبد الله تعالى ما خفت تغنينا على خدمي فرعوا ما دموا لسان من تيمي امام الارميني خادم الرسول ما واخ واخ بيت دفجن بالتي bilaa lam yaati wala yaati bam laa awlan xaadim rasul lay bëgg a wax bilaa lam yaati wala yaati bam laa awlan di bi mu laata wax dafa giñ jiital te ngiñ am na lu ci ne bilaa lam yaati wala yaati ndol ma teeli ngeen araf yi ñuy giñe ñetti araf la bilaa lam yaati wala yaati bam laa awlan ñett kilifa giñ na ci yoo xam ne kenn du wax caaxaan. lay lam yari wala yaati njol ma keelin de. waaw la ñuy giñee. bilaay lam yaati wala yaati. ak daa tombe la ñuy giñe mbaa waaw. bilaay lam yaati wala yaati. wala baa wala taa. bilaay lam yaati wala yaati. borom laaw lam. ñetti araf yooyu rek ci la ñuy giñ da ngay wax billahi. bilaay lam yaati wala yaati. wala nga wax wallahi laa lam yaati wala yaati bam laawulam maa nga wax tallaahi bilaahi lam yaati wala yaati bam laawulam déglu leen rek nag ñetti kilifa yi ni ñu foore bilaahi lam yaati wala yaati bam laawulam de yi jël na waaw di ginci والله لم يأتي وليس يأتي فهم لا ولم ci des ci ci pootaa tombe gi giñ ci بالله لم يأتي وليس يأتي فهم لا ولم ki ci des jël baa gi giñ ci بالله لم يأتي وليس يأتي ذا الفكالين قد kenn ki si daaj Malick la moo giñ ci taa tombe gi خلال ما غبت تغمد على خذبي فهم لا ولم kenn kenn ki
سلام أغفر يا صبي فهم لا ولم kenn ki Maulana Ahmad Bamba la بالله لم يأتي وليس يأتي فهم لا ولم دي moo giñ ci waaw gi والله ما في أرض وسمائي
ndeysaan si addu abbi wax loolu والله ما في الأرض وسمائي والله ولم si دي addu abbi jël waaw gi والله ما في الأرض sëñ وسمائي Bamba jël lu baa gi والله ما في الأرض وسمائي alaaji Malick jël taa tombe gi والله ما في الأرض وسمائي kële na na billahi بالله لم يأتي ولا يأتي kële na wallahi بالله لم يأتي ولا يأتي kenn ki ne wallahi بالله لم يأتي ولا ñoom يأتي
ñëpp nag ngeen déglu li ñu giñee lan بالله لم يأتي ولا يأتي déglu nag xaadima rasul lay jëkke بالله لم يأتي ولا يأتي ne ne billahi giñ naa ci màggug yàlla بالله لم يأتي ولا يأتي بما أولم ñu ne ko mooy tu mbàkke looy giñ لزوم بالله ذي الحياتي جل جلاله ngiñ am na ay circonstances yu ne ci biir mu ne xam naa ko بالله لم يأتي ولا يأتي bi ma laata giñ xam naa li giñ la moo بالله لم يأتي ولا يأتي بما أولم maa ngi giñit ci li ma dëkk ma lépp بالله لم يأتي ولا يأتي إمام ci الحرمين ñaale li ma ginnaawal lépp بالله لم يأتي ولا يأتي جل بكالي boole naa lu ma si naru uut bay laa yomal xëy بالله لم يأتي ولا يأتي
dama ne lam yaati musula juddu بالله لم يأتي ولا يأتي lam yaati musula juddu lii ko dale ci fii mu koy waxee ذيات ولا ذياتي ba sës samaam aadama mi fi jëkk musula juddu ذيات ولا ذياتي musula juddu misla ahmada من عبد الله الحياتي musula بقول juddu li ko dale fii may waxee wax di man sëñ Tuuba لا لم يات ولا ذاتي ba keroog ba yàlla wax maam aadama kun fa لا لم rasul يات ولا ذاتي diggante boobu laa ne musu fee juddu misla ibni abdillahi من ñu ne عبد الله ko الحياتي loolu leer na sa ginnaaw nag loo ci xam بلا لم يات ولا mu ذاتي ne wóor na ma ne billahi wallay sa yaati من عبد الله الحياتي li ko dale fii may waxee man sëñ Tuuba bay laa yomal xëy لم يات ولا ذاتي fii mujjee juddu àddina tukki li ko fa dale ba foofa عبدالله ذي الآياتي wóor na ma ne lam yaati du ci juddoo ti mukk ابن عبد الله ذي gis الآياتي na nim na Abdoulaye kam doomi Abdoulaye Dia ابن عبد الله ذي الآياتي comme sëñ Tuuba nee li ko dale fi mu juddoo ba ca sëñ ba ca ah, maam Aadama ne bi ku mel ni moom judduwul مثل عبد الله ذي bu fi الآياتي départ bay laa yomal xiyam ku mel ni moom du juddu مقف رسول الملائم رجل رادي كامل إفليل ak góor googu ni mu jeexe ci yàlla مدثر مسمن ak ni ko yàlla xëcc ci عبد boppam الله ak ni ko dara ba ñu في umte mu بلاي lëñ tu wax wax ba سميع liñ إلهي teg ci door a départ إلهي كريم إلهي te kat am na woy bu mu ci teg خاتم الأنبياء خاتم bi mu رسلي ko waxee ba noppi am na lu mu ca teg والله ما بأرجوك
na ne xat xultu wax naa bax bii ma wax min xayri asrarin ci lu ndéey du nëbb dama ko wax bind ko wala ubaali te faale wu ma sawil inkaari ku ma contre mbaa ku ma wet امام الحرمين ورسول العالمين هذا مكاني moo leen gën du gën gu ndaw ربنا بعد ذاب ما اولم دي moo leen gën du gën gu خلى ndaw البطول العرب وانبهروا مادا وابتغوا زي بتاذن جل مكيالين جن والله seen والله ما في wax الارض والسماء
Cheikh Seydou Abey bëgg a wax ne والله ما في الارض والسماء بم لا بلا Cheikh Seydou Abey bëgg a wax déglu leen ko والله ما في الارض والسماء Cheikh Seydou Abey bëgg a wax déglu leen ko والله ما في الارض والسماء Cheikh Seydou Abey bëgg a wax déglu leen ko حضرتي مرحبا.
مرحبا البخاري المختار تعالى وابي تعالى محمد ابن يحيى الشقيق سيد الالي طبت ديني مولى ابو بكر مولى يحيى عبد الرحمن اران اتلان اجملان ابراهيم المذود ولا ما في الارض والسماء kookoo ngi juddoo ci néeg bu mag a mag a mag a والله mag a ما في الارض والسماء borom alxuraan wax naag Moustapha te ca la bokk والله ما في الارض والسماء الله daf ko ne yaa nisaa nabi lastunna ka hadin min annisaa in ittaxaytunna fala tahda'na bi qawli fa yatma'a allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jaahiliyyati al-uulaa wa aqimna salaata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu ne innama yuridu Allahu li yas'aba ankum rijsa yéen ahlal bayti wa yutahhirukum اللهم العالم من ورسول العالمين عيد الذكارين قد duggan gu ndaw laa la wax باق من عالما بنبوتي رب لا ولم دي te daa bee bëgg a wax lu واي ما في الارض والسماء moo ci foo waaw gën a walaay ji ñàkk والله yàlla ما في الارض والسماء رب لا ولم borom bi may na ma ba tana asamaan yi ba tax ta saraa والله ما في الارض والسماء لا والارمين man dem naa ba aar sa laa wax والله ما في الارض والسماء رب لا ولم دي jaaruma faak yàkkamti visité والله naa ko ما في الارض والسماء جل مكالين ba tana géej gi ba mu daj visité naa ko والله ما في الارض والسماء رب لا ولم ba دي tana suñu juróom-ñaar ba mu daj visité naa والله ko ما في الارض والسماء
maa ngi leen di giñal yéen ñépp ne والله ما في الارض والسماء asamaan yi juróom-ñaar laa wax والله ما في الارض والسماء بم لا ولم ak suuf yi juróom-ñaar boole naa ko ci والله ما في الارض والسماء ne amu ci koo xam ne kii والله ما في الارض والسماء amu ci koo xam ne kii كف على مدى من الاشياء danaa suñu juróom-ñaar ba mu daj كف على مدى من الاشياء ma bëtt suuf yi juróom-ñaar ba mu daj كف على مدى من الاشياء visité naa fi ñu baax ak ñu bon كف على مدى من الاشياء maa ngi leen di ginal bi ma ñëwee résultat bi ma indi mooy maa fi sama yi nekkul ci asamaan yi juróom-ñaar boole naa mu këri biina boole naa mu xëra biina boole naa wul asmi ñoom ñépp laa wax wa fi ardi nekkul ci suuf yi juróom-ñaar ku fon benn nawle min al asiyaay ci yëf yëpp li amada ñeel ahmad am اللهم العالمين ورسول العالمين اهل المكالين boo yal na la yàlla yombalal wërsëg bi ay rasul lay اللهم محمد moo joxe ñaar téeméer yàlla ko yàlla yombalal بدر مؤمن كبار ما تبع بجاي محمد والمو خلال من محمد sidina ababakar jàkkoor naa noon nabi na ko yaa gën ñépp
أجد لونين دون مكيالين دون خيال yoon ak moom ne ko yaa gën ñépp yow nabi bu fekkoon nekk ne du ngoon ngoon lamboo mbaa yërmande nga xam bu fekkoon ne du ngoon ngoon lamboo mbaa ngëreem gon yow mii
يا تاياتين yow Moustapha yow lay wax Seydina Ababacar ak ko wax ba cëg أجبنا لمن إيران يا خير العلم سل على المختار من آلهات تايات ne ko yaa sut yaa sut ñépp ñépp boo sëggul woon kenn du la jot mu waay min
ولما عجبه ربه للمكان فحنت لدي أمات وزائم سايات أبو خادم gudd nga gudd goo xam ne boo liisul woon kenn du la jot laa wax الذين عبدوا على الصيام سرم يغلق بابنا ليام يرونهم لن فتوا نبي القبور وفي القيامة من المغنم كبير سايات billaahi tàng nga tàng goo xam ne boo féexluwul woon loxo du la laal bu ñuy jëlee ci ku dëkk ci diine al buraaq ba ci diine asamaan juróom-ñaar wa man sànn min jibril rafiqan musammidu min aljili lama jaa wa huwa zaakir min almajdi laxsa inna nafsa taali adanna fatadalla tayadin mu ne njool mag mu ne njool mag boo doon xaar sa nawle door a wax sa gémmiñ gi yàqu sa doo wax
يا فزمنة الباب سجن محمد فما ليت من بغل سميم وسودد لقد صدقت في مقالة منسد أذى الله أهل الأرض سرا بسيد سمك ياسين su fekkoon ne kenn sa doom yi balaa sëy sëy ak seen nawle kon du ñu sëy
ابن عبد الله عبد الله واي- بن عبد واي الله ندري.
بن عاصم عبد مناف جاد عن قال وبين الباتا ياسين daf ko ne yow ëpp ñëpp boo sëggul woon kenn du la jot
جنون على حبي أبي سويتها حياة مجدي في الأولى تلوتها فقلت لكم لما عليكم جلوتها تاياد وين يا أبو واحد maa ngi yow yam day bari ci sama yëpp day bari ci sama xel.
te Moustapha laa la bëgg a wax li ko Ababacar mi ko xam waxal xina alxinaa andu naw la sa dal xinaa taaye aadin nee na ko yaa sut ñëpp boo sëgul woon kenn du la jot akad law an qad law laa tujallu di fa billahi xaaluuni xay bi ma sabi taaye aadin nee na ko boo doon lu ñuy laal tàng nga tàng goo xam ne boo féexluwul woon duñ la laal rafitu taftu laxtartu junowun ala nawa taaye aadin bu fekkoon balaa nga ubbi sa gémmiñ gi wax ak sa naw la doo wax bay laa yomal xeex amanna niiran bilfiraaqi xuraab wa wa naanu alal miskin lanaa bi turaab yaadin sa doom yi boo ci woon xaal morom du ñu sëy bay laa yomal xiyaam nam muliqaa annaasi walsimma kaada ka qayyat bi qaydun min alxadiidi lizaay nakaada ولا تنس ذكر الله في كل ذات تاياز فكون نك ne balaa ngaa sëy sëy ak sab nawle doo am jabar ba ma ne na soo ko xamul إذا كتبت تحت الباغ وسبحت ملائكة باغ لسان سكري وسكري رفقا للحرس والكرسي نور وفقا تاياز waaw kay ñaar ñi jiñoon ku ne wax nañu sa ngiñ waaw mu des nag Maulana Hadj Malick moo ci poo woon taa tombe ji.
jërëjëf jërëjëf du noonu de du noonu de du noonu ñi di de du noonu de du noonu de.
ñoon ku ne kii jëloon na waaw kii jël ba mu des El Hadj Malick moo ci poo woon taa tombe ji.
daare yi daggan xol yi sakk bi njiit xam-xam bi waaw ñu génneew du jàngaani seetal ñi takk ci moom mbaa di guneem sofi moom daggi na seen xol ya labloo cëri ci diina koo ci nuyu ni ko naam si juumuloo dafa naan ci xay bu yaas watun maas du caafaan
Sidaaj Malick moo ci poo taa tombe ji am na moom it lu mu giñ. waaw waaw Cheikh Seydou Abi moo jëloon waaw. ndeysaan.
كامل الله كليل مدسر مسمى بلاي ما بايونن بلاي ما غيوتان إلى العقلني خيال علمين Baaraji Malick moom itam moo giñoon ci taa tombe ji.
بلاي ما غيوتان إلى العقلني بمنا أولم Sëñ Tuuba moo jëloon baa gi.
بلاي ما غيوتان إلى العقلني بمنا أولم Cheikh Seydou Abi jëloon waaw gi.
بلاي ما غيوتان إلى العقلني إمام العلمين Malick jël taa tombe gi.
بلاي ما غيوتان إلى العقلني moom it déglu leen li mu giñ ndax niroo naag li gaa yi fii.
بلاي ما غيوتان إلى العقلني kële noonu na asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar. ku ne li wallaay moom wallaay billaay taalaay bam laa awlam kële noonu na li dem ak li paase ku mel ni Mohamed amu ci.
taalaay billaay wallaay moom la rëmi nii Baye El Hadj Malick itam am na lu mu giñ.
taalaay billaay wallaay bam laa awlam moom daf ne tallaay maa xiftu sëniyaan ala xasani.
taalaay xeel almi dafa wax ne tallaay.
taalaay billaay wallaay moom la rëmi nii dafa wax ne tallaay maa xiftu sëniyaan ala xasani.
taalaay maa xasutoon ala xasami xeel almi nii waaw kay foofu la wax bi jeex tallaahi maa xiftu tunidan ala xasami taalaay maa xasutoon ala xasami xeel almi nii kooku moo tudd misraaw misraaw mooy genn wàlli way taalaay maa xasutoon ala xasami njol ma kiyaali Maodo aya def na tallaahi giñ naa ca yàlla طلعي ما قلوا تغني الأخذ بي بلا أولم tallaahi giñ naa ci màggu buur yàlla ne طلعي ما قلوا تغني الأخذ بي خيال عالميني mbokk yeeg taalibe yi daw la nga mu ci ne ko doo ko fi giñu mukk mukk mukk طلعي ما قلوا تغني الأخذ بي خيال عالميني ngiñ dafa am lu mu lamboo te foor naa بالله تلاي ولاي تلاي soo giñee la nga giñ di dëgg بالله تلاي ولاي تلاي
téere yi ne nañu giñ katab dëgg طلعي ما قلوا تغني الأخذ بي ما ورمين bu du gudd fan du bari wërsëg.
alaay maa këftu tax ne ma ala xabar mi imaanul ayre mi ni kii giñ dëgg laa wax kii giñ te li mu giñ di dëgg.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami kii giñ te li mu giñ di dëgg laay wax.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami kooku ne nañu du bari wërsëg du gudd fan.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami
déggu leen yéen ñëpp perdal ngeen te maa ngi waxi wax.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami dama ne kuy giñ te li nga giñ di dëgg doo gudd fan doo bari wërsëg ndéem dëgg la.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami
li ngay wax dëgg la fen nekku ci waaye nga faral toujours di giñ di ko door a wax.
salaay maa këftu tax ne idan ala xatami xeeru laa di may ni téere yi ne saw fan du gudd doo bari wërsëg.
salaay maa këftu tax ne ala xatami njol ma këyalin ngeen pour oyofal gi nga oyofal tur woowu di ko gaaw a am pour waaye.
salaay maa këftu tax ne ala xatami xeeru laa di may ni am na gor yu ñu jiñ lu dul dëgg jiñ loo leen rey leen gënal leen tudd turu yàlla.
salaay maa këftu tax ne ala xatami njol ma këyalin ngeen li ngay jiñ nag bu dee fen ku la jëkk safara daf la jëkk dee.
salaay maa këftu tax ne ala xatami xeeru laa di may ni li nga jiñ bu dee fen ku la jëkk safara daf la jëkk dee.
salaay maa këftu tax ne ala xatami xeeru laa di may ni moo tax ba alaaji Maalik ne tallaay ñu la ndaamu ci ne du fi am.
salaay maa këftu tax ne ala xatami bam naa loo doot alaaji Maalik doo giñ.
salaay maa këftu tax ne ala xatami mu ne bàyyi leen ma bàyyi leen ma maa xiftu ragal.
salaay maa këftu tax ne ala xatami mu ne bàyyi leen ma bàyyi leen ma maa xiftu ragaluma saani san dab dabaatal ara xasami ci li may giñ.
salaay maa këftu tax ne ala xatami bam naa awram di borom bi daf ne képp ku giñ te la nga giñ du dëgg am na lu la waar.
salaay maa këftu tax ne ala xatami loolu la ñuy tuddee atanis.
salaay maa këftu tax ne ala xatami dama xurumi bam naa awram di borom bi daf ne képp ku giñ te la nga giñ du dëgg am na lu la waar.
salaay maa këftu tax ne ala xatami loolu la ñuy tuddee atanis.
salaay maa këftu tax ne ala xatami yàlla la ko yàlla yombalal yombalal ku jullit yëpp di jaay rasulillahi.
salaay maa këftu tax ne ala xatami njol ma kayalin ngeen gisal article bu ne ci alquran salaay maa këftu tax ne ala xatami bam naa awram ñëw dal ci atte atte ba na mu ko santaane lañ koy doxale salaay maa këftu tax ne ala xatami xalaat mi nii dafa am benn waay bu xëy giñ ci jabaram ne ko suma la xamante xam sama ndey booba nebee ngi dund jabar gi ñëw nettali ko Moustapha yàlla waxagu ci benn article nebi réel lëf la ngir màgg ko way jur ne ko kon sa jabar araam na la sa jëkkër araam na la ndaw sa dem ba kër ga toog xalaat boppam tiit dellu si na ko Moustapha seetal ma bu baax sama jëkkër bëgg naa ko lool te jeexal naa sama ndaw ci moom nebi na ko araam na la mu dellu kër ga toog tuuti dellu siwaat na ko ma gis la nebi jóg mu ne ko dañu jaboot te samay lex daanu na góor bëgg tuma te mënumaa dundal njaboot gi seetal ma bu baax nebi na ko araam na la yoon wu ci ne nag mu ngi ko fekk mu toog ak jabaram ji ñu aayisat bu ñëwee rek nebi jóg wax ak moom delluwaat toog troisième voyage wa ba nebi quitté ndaw sa di dellu si ci jabar gi jabar gi daf ko xool gis kanam gi changé bu alxuraan daan bëgg a ñëw kanam gi dafa changé mu gis kanam gi changé mu xam ne ndaw sa soxlaa ko fi indi te léegi yàlla wax ay sutu fudd na ko ma ñëw dab ndaw si ne ko bëgguma xam sa secret xaama it looy laaj waaye léegi nga am tontu kanam gii ma gis bu ma see mel mel wi kii léegi yàlla tontu ay sutu ne na li ma doon lee tax a gëm yàlla aaya jooju ci la fi ne bi doon déyeeg ndaw si matul dix mètres dégguma li ñu wax ndeke yàlla dégg na ko ci asamaani juróom-ñaar ba répondre naka laa naka laa si rek dab ndaw si wax ko loolu ne ko léegi nga am lu leer dellu si rek ne bi ne mindel miir na jaayaat ndaanu ma sàng koy mbàjjam mu am minute te mbàjjama ne bërit mu ñoril ko mbàjjama mu génne wàlla ñaq yuy niroog jamaa ci kanam bi mu ne pàcc moon ne dabal leen ma ndaw si ñu dab ko yàlla tontu ne laqad sami allahu xawla lati tujadiluka fi sawjaha wa tastaki ila allah wallahu yasmau taawarakuma inna allah samiun basir imaamul xarameyni wa rasuulul aalamiin alul makaani waaw waaw waaw waaw waaw waaw du ngeen ko wa daw ma maqa wa kula maqa ba ma awran waaw waaw waaw du wa ngeen ko falu daw ala lan jaayin ba ajwali njol ma kayalin ngeen du ngeen ko ndaw de خير بني بدر لا أدنان خير البطول العرب وأمدالهم maatan taala maa qadar taqdira ala qadami jaajëf imaamu arimayni buur yàlla def gone la xad na samia laam ji laamu ngiñ la xat ji xatuk taxqiiq la taxqiiq mooy loo xam ne li mu lay wax wér na la yàlla giñ boole ci na la xad na samia billaahi dégg na ku dégg laawu yàlla lu mu dégg xaw na la ciy waxi ndaw si nga xam ne tusaadilu ko mu ngay répondranteeg yow fii sew si xaa ci mbiri jëkkëram wa tëstakii tamuy tawat néew doole ilallahi jëme ko ca yàlla wallaahu yàlla yes ma o dégg na taxaawara kuma seen waxante gi xamu leen ne ina laa naka yàlla samiun borom ab dégg la ci dul nopp basirun borom ab gis-gis ما من نبي ولا رسول إلى خلق من ذي طلعة البيخ العالمين dal dina Mohamed buum nga nag affaire bi demewul noonu ma wax la léegi li ci war
فوزنوا بملا ورمدي ne ko inna lasina yusaharuuna min nisaihim ma hunna ummatuhum in ummatuhum ilayhi walatnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa huwa wa ana la ghafur فوزنوا خلال بعيني waaw وكل مبروب لا ذكر ولا يام بملا ورمدي yàlla ne na inna lasina jëkkër yi nga xam ne yusaharuuna dinañu nirale seeni jabar ñu di ko niraleeg ummaatuhum seen ndey yi maawun na déet seen jabar yooyu ummaatuhum di mën a doon seen ndey ah ah inni ummaatuhum déet seen ndey ya ilal la indare jigéen ñi nga xam ne ñoo leen ëmboon wa juur leen innahum naka jëkkër yooyu daal la yàqulon dañuy wax rek mun karan wax ju ñaaw wa sooran ak i fen tasul sëy nag ina laa naka yàlla la afuwun jéggalaakat la xafoorun ju di baalaa koon kon ku ci waxati sa jabar wax boobu te kilifa nekk fa ni fi kilifa teg loxo may la dale quatre mois bu quatre mois yi jeexee te ñëwu la fàyyile sa jabar ñu door laa wax loo nar su jeexul nga wéeg sa jabar séeg moom nga nga nga goreel jaam mbaa nga or ñetti weer mbaa boog nga leel juróom benn fukki mbiskin doora laal ndaw si article ba dal nag ne ko loolu du dara ku ko ci wax da ngay fen waaye ku ko ci wax bëgg koo miim am na lu la war looloo tudd nag tax niis loolu la alaaji Malik ne du ma dal yàlla ne indi la seen ak jëkkër yi nga xam ne yu xëxëroo na dinañu nirale seen jabar ak seen ndey dem ba mu yàgg su ma yoo doonu ñu rikkile arrière nag bëgg a tëddaat ak ndaw sa fa noonu du ma tëddaat ak ñoom fa tahriru raqabati nañ goreel jaam nañ goreel jaam nañ ko def min qable an yatamasa avant ñu def benn amour waxuma kat ne dinaa ko def nañ ko def nañ ko def min xam leen ne tamasa laal wax laal lii rek balaa ñu ko def na jaam bi ko rek fay lem yi jit ndéem amuñu jaam bu ñu joxe fa siyaamu nañu oor sax rey ni ñaari weer mutatabi ay ni ñoo bokk min xam li an yatamasa balaa ñoo toog sax waxuma ak bisi suñu ko amul faytaamu sikkiina miskiina nañ leel juróom benn fukki miskin soixante personnes nga jox leen ba ku nekk suur xam naa cinquante kilos lay doon mbaa trente kilos bu ñu bëggul lekk lool ci yoon nag loolu mooy mooy tax niis loolu la ñu ragaloon alaaji Maalik mu ne du ma dal parce que li may wax dëgg la bu fekkee ne nag wax nga affaire ñetti yëf yooyu yëpp yoon teg la ko foog nga goreel jaam mbaa boog nga or ay fan mbaa boog nga jox ay nit ñu suur ñett yëpp nga mën ko mën ngaa woor lool am nga jaam boo goreel am nga itam loo mën a jox juróom benn fukki nit xam nga bu ci ëpp yool joxe lekk wee ëpp yool waaw boo koy dégg da ngay foog na koor gi ëpp yool ëppul yool joxe lekk bee ëpp yool xam nga buy deeseem goreel jaam bee deeseem xam nga buy troisième or door a ñëw pourquoi xam nga lu tax loolu moo di koor gi yow rek la jëriñ yow doo nga oor yaa am sa yool yow kenn moo tax muy daree li tax kële di diisee mooy jaruñu nga ci jàmm biñ ko goreel jariñ lu tax ba lee ëpp doole muy juróom benn fukki ponkal rek na nga dooroo boole si njariñ kon juróom benn fukk jariñu na nga jariñu moo ëpp doole kële di diiseem kii di troisième sur que ayo affaire yooyu lañ doon bañal alaaji Malik mu ne bul seetaan leen ma rek man maa xiftu ragaluma ta ni si benn responsable bu ma dal alaxasami ci li may ji ñu ne kon ñu déglu loo wax mu ne dama ne sarwaawu doom ji mel ni Moustapha laan madame Maw dootu ko ëmb mukk as daa fu jabar min tëye mi jële ko ci jëkkër bay laa yomal xiyam
يظن ما ابن كلام يكون
moom laa leen indil tey actualité